rab bi ak wormaal ko moo tax mbooleem taalibe yi ku ci dugg ci jumaay Tuubaa ju mag ji doo sol ay dàll tànku neen ngay def wala nga sol ay kawas yenn waxtu yi nag naaj wi day tàng lool ba tax na karo yi boo ciy dox tàngoor wu jéggi dayoo moom moo ciy bàyyeekoo ba ñu fiy dugg dañu koy yëg bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides fas yéene soppi karo yi def ci yeneeni karo yu yees yoo xam ne mën nga ci dox waxtu wu nekk te du tàng bunt nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy ci jumaa ji nga xam ne dafa laajoon yeesal ndax léeg-léeg tàngoor rek yu mel noonu ci nekk euh, kilifa yi ñeewante ci taalibe yi amoon yéene sopp ko kon loolu moo waral ñu tàmbali liggéey bi waaye nag des na ko gën a yaatal ci yeneen yeneen anam euh, Cheikh Bachir nag joxoon joxoon ma ci ndigal Euh, boolema ak sëñ Moustapha moom mi nga xam ne moo moo fi moo fi teewal njabootu waa kër waa waa Njuga Keppe famille Njuga Keppe yëpp. Mm-hmm. yàlla ko suma ram dolli njëggal ak yërmande. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla dogal moom it euh, lu mu fi bàyyi woon ay kar yu yàgg yu mu fi bàyyi woon. nga xam ne ca pale ba la jëme woon. pale ñuy wax pale Njuga loolu ko taxoon a jóg ci ci jamono boobu yàlla dogal boobu ba léegi karo yaa nga fa waaye kon sunu borom booba dogal na ne euh, karo yooyu ci jumaa ji la jëm waaw kon. Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadr moo fi teewaloon Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou ci ndorteel liggéey bi. mu ànd koog waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ni ñooy saytu lépp lu jëm ci jumaay ju mag ji. Serigne bi leeral na yéene gi nga xam ni Serigne Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou am na ko ci jumaay Tuubaa ju mag ji. kon nag liggéey bi ñu tàmbali tey liggéey la boo xam liggéey bu am solo la ndax karo yi xam ngeen ne. ñaari karo du ko seex am na ci karo yu weex balaa karo am ci boo xam garanti li garanti nag karo bu seer la ci gën a seer la bokk sax waaye day tàng boo demoon boo demoon Madina sax am na fa waaye dañ ko mujj dindi te fa ca gën a bari ndax karo bu seer la waaye ñaar li ci ëpp ci biir lañ koy jëfandikoo foo xam ne aw tàngoor du fa bu dee tàng day day téye tàngoor boobu ñu duñu fi mën a jaar moo tax penku bi euh, ci jamono suñ siir Muxtaar lañ ko soppoon defoon ko comme nii ndax bii euh, alhaji yokkee moo ko fi njëkk a def ndax karo bu karo bu seer boo xam ne ci gën a seer ci àdduna lu waaye dama boo fi masaan jaar ñu sërmal ajjuma léeg-léeg da ngay yërëm nit ñi mm. da ngay gis nit ak pësëf musum bi dàllam musum bi dàllam ndox ba ci yàgg nga gis ne mënatu mënatu koo dékku ndax ndax tàngooru métti sama classe bi nga xam teel nañ koo xam sax ay la dañuy yóbbaale waaye xëy na ñëpp tolluwuñu ay ay ay ay jéeg te Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké dégg naa ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu wax ne wax na ne sori dàll ci penku bi bari na lu ni ñàkk te mu ko xañ moo taxoon sax mu baare ko ne ba maa ko maa ko defaroon ci yooyu jamono ba nanguwutul ko fa jaar ngir bañ nit ñi di fa sori dàll kon nag liggéey bi moom jumaa ji moom ndigal suñ Tuubaa la mooy ndigal suñ Tuubaa li ko gënoon a ñor it nag daali ci wax ci wax ci lu bari. ndax bu àggee ci ne bu ngeen ko yëfutoon malaayika yi def ko kon loolu moom lu sotti la ba liggéey bi nag waa kër El Hadj Babacar Kébé ñu gën koo xam ci Ndiouga Kébé ñoom ñoo ko sasoo fas yéene ko liggéey ba mu àgg. ci sëñ Moustapha Kébé nee na moom amul kàddu yum sànni kàddoom mooy sa kàddu dugg na ci biir nee na xanaa dañuy sant rek cant koo xamante ne nii am na fa mu tàmbalee waaye amul fa mu yem ndax bu àllaa gi Ndiouga Kébé daan jëfal sëriñ bi. dem ba am ñeen fukki at ginnaawam ab liggéeyam ñëwaat duggaat ci biir liggéeyu sëriñ bi nee day war ne loolu kat liggéey ba sëriñ bi nangu na ko ndax mënoon nañ koo bëgg te duñ ci am ndigal mënoon nañ ci am ndigal tamit te du jàppandi waaye ñaar yëpp nag daje fi bëgg gi am na ndigal li am na kon nee na ñu ngi sant sëriñ bu baax di sant cant googu nga jotal ko sëriñ bi. sëñ Moustapha nee na moom benn kaddu rek la ci am loo xam ne da koy dugal ci sa wax ji di ko seere ndax nee na Allaaji Njuga Kebe bi mu tukkee dem Baxdaad dem siyaara ji barabu Seydina Aliyun karamallaahu wajhahu nee na ñam àndaloon daf ci am ko gis benn làmp boo xam ne lépp day or nee na mu yéem làmp ba nee na Allaaji Njuga ne ko ci yow day xamoo li ngay wax daanaka rek daa ne ko suñu waa ji ya Tuubaa day kii am na fi junniy at am làmp bi bàyyil ba suñu waaji am junni at fam tëdd waxuma ab lamp waaye barab bépp lépp or lay doon jumaa jëpp or lay doon waaw nee noonu la ko waxee woon nee na kon nag lii ni nga ko waxee léegi rek loolu lay dëggal nee na jëla ñaanal baax a baax sa taxawaay yi ndax nee na bala sëñ bi boole ñoom ak léegi lépp ci soññu ak i taxawu boole leen ak sëñ maam Thierno bañ def lépp ba di ko tàmbali tey suñ borom yow tamit kàttanal la dëgëral la ndax sa taxawaay yoon yépp rafetlu nañ ko taalibe yëpp rafetlu nañ ko. waa kër El Hadj Ndiouga Kébé yi nga xam ni ñoo sasoo bi la liggéey fas yéene ko liggéey ba mu àgg sëriñ bi sant na leen bu baax a baax ci seenub yéene ak seenu jëf waaye santaale seen waajur wi nga xam ni ay jëfam ci jumaay Tuubaa ju mag ji ba léegi mi ngi fi des. ñoom ñi seen waajur am taw féexe te seen seen laxat ku ko xam ku ne xam ne ku ma noonu segg mbir la ndax danaa wax naan bañun yoon wi mooy tàllal sa dul yàlla. man bañu yoone modi modiidi li xayrihi indi indi junoon wa qaada li xalaal wal funoon moo bari waa ne ko mos ko nangu nag moo yoon na ko mu liggéey ci jumaa ji liggéey na fi liggéey bu bëree bëri naa ci nett li benn kii bi liggéey bi àggee ba jumaa ji àgg moom dara laa Sëriñ Tuubaa ndigal waxtu ne da daa bëgg nga jox ma ndigal soxna Aminata Bousso la ko daa jaarale ay lettres yu mu ko daa bindee ba sëñ bi tàmbalee jumaa ji nag woo leen moom ak si Cheikh Mamadou Moustapha magam ju tedd ja ak sëñ Massamba ak ñam leen boole doon Cheikh Ibrahima Fatou moo ji liggéey bi ak Cheikh Issa Dieng Cheikh Issa Dieng moo doon taxawu jumaa njaarim jumaa euh, ko liggéey boobu ku ñëw na la ca fekk ku dem na la bàyyi na nga fexe ba ndigal li ma daal laaj itam euh, na nga fexe bu la ca kenn mën moo tax mu def ko yitte suñ baar mos na maa dégg muy nett décompte yi ñu def ñu daa def nii sax bu ko bu daa joxe moo ko daa toppal boppam xaalis bi sax dafa daa yëkkati di ci fas nga xam eh, liggéey jumaa yi ni mu ñor sëñ bi kon bi liggéey bi àggee daa jàkkaarloo sëñ bi na ko eh, fii leen toll yow ndax fële suñ dool fële fële suñ dool toll waaye buñ ko mënoon ñu def ko or. ma tax ñu bari bi ñu déggee ñu ne alaaj ñu def na woor ci barabu Sëriñ Tuubaa yaa fekkoon waxi Sëriñ Fallu ja ñoo xam ne baatin boobu mu ak sawat kon liggéey bi ngeen tam daal di yéen njabootam yi te yàlla def ren la am ñeent fukki at kon loolu tawfeex la te mu jëmee ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa yéen itam ginnaaw bi ngeen jël ko def ko addi ki fi nekk Sëriñ Tuubaa mu ne fi ba léegi ni yaa mu dem ba Cheikh Mamadou Mountakha di ko commande ngeen war ko jënd mu tombeeg seen xalaat kon loolu tawfeex la ak day mel ne payoog suñ tubaab la rek. xasee gi ma suñu affaire jox xam naa dinaa leen ko jox ngeen tasaare dañ ko jox mu joxaat ma waaye boo xoolee ba ci biir najsil muxsinina la ko la ko suñ tubaab tànkee te gis nga yaxdimuhu fuaadu minni wal yadu ilal jinaari wa hudahu al afidu de la suñ moom daal am nekkul sut fa rek lu mu waajal kon nag yéen itam liggéey gam liggéey la suñu Tuubaa rek moo rogalaat ci yéen ba tawfeex ji ngeen am def ko ndax ay liggéey la yu bari yoo xam ne sëñ bi war na ko fi defal ci jumaa ji ndax gis ngeen ne parasol yi gis ngeen ni mel euh, waaye sëñ bi moom xam ngeen ne université dafa nekkoon liggéey bu rëy bu ñu waxtoon boole lenn moo tax ndegam certe na nag am na yeneen liggéey yoo xam ne war na ko fi àggale te ñu ci waaye lii moom yàlla def na ñoom ñu am tawfeex tàmbalee ko laata sëñ bi def liggéey boobu donte doon def na ci lu bari nag ndax xuba yooyu yëpp moo ko àggale boo ko doon xool ëpp na sax un milliard waaye liggéeyam décoration moo mel noonu day seer te doo ko mën a xam kon ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal yéen suñu Moussa di leen yóbbante ñëw ci seen njaboot gépp mboolem ñeen ko àndal ñu ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen jëf ko mu tàbbal ko ci liggéey ba seen waajur ji liggéeyam Sëriñ Tuubaa ci nekkam tuyaaba jaay lépp fekk ko fa te yéen tam ngeen bokk ca ak ñun ñu ko fekk ñëpp ak lépp taalibe a lépp jurit salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fu ñu toll ñuy nemmi ko loo xam ne lu ci war a yokk la ni ñu ko xamee jumaa moom ndegam jenn jumaa mu dul ak garawaat na jumaa seen tuwaay ji nga xam ne murit fu ñu tollu seen yéen fekk duñ ko or duñu am jàmm te jamono mën naa dox ba lu ci bari doon ko ndax sëñ moom mbiram moo dem noonu. di ñaan naal yi nga xam ne moom la naal moo àggale ko ni ni mu gënee di ci am yaakaar bu baax ndax ñi nga xam ne yàlla yàlla dogal ñu tabi seen loxo tey kenn du la guleet ndax ay wantaatee képp raj ni ko ma koy ci jumaa ji moo defee décoration bi ci biir ak yu bëree bëri yoo xam ne gannaaw buñ ci buñ ko jullee daal moo ci njëkk a dugalaat loxoom ba lu bari moo ko ci taaral kon ñu ñaan moo tis moom dool yërmandeem doon leeram mu ànd ak sëriñ ba Cheikh Khadim ñaan njabootam gi fi bàyyi tamit suñu room teg ci loxo ba lépp lu mu yéenoon ko ko ni mu ko góobee ba def seen wàllu bopp. liggéey bi nag ñoo ngi ko fas yéene door ci samedi bi dëppoog le 11 mai 2024 lépp yemb na mboolem karo yi ak li nga xam ne moom moo ci aajowu ngir defaree ko ni nga xam ne noonu lu ko sëriñ bi bëggee lépp nag ñu ànd koog sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassir mi nga xam ne sëriñ bi moom la dénk lépp lu jëm ci saytu gi ak taxawu liggéey bi ba